xarit yi ñoo ngi leen di euh, euh, nuyu di nuyu képp ku nga xamante ne bii euh, yaa nga actuellement poroxaan ñu ne Sénégal ñun ñëpp ko bokk kon dañuy ñaan ña nga xamante ne bii ñoo ngi fa di ñaanal Sénégal yëpp bépp yiw mbokk yi yal nañu ko bokk alors damay faral di jiital li nga xamante ne bii mbokk yi mooy tout di leen nuyu waaye su ma ci nuyu boobu di ñaanal Sénégal ñëpp jàmm ak salaam waaye di ñaanal ña nekk ca wetu Sénégal àddina wërngal këpp parce que fu ne sénégalais nga fa waaye fu ne mbokk yi doomu aadama mi ngi fa. Euh, bu ñu jugee ci jàmm joojule dañuy ñëw ak yeen mbokk yi ci wër ak wërlé dafa am solo it alors c'est vrai on le dit dans cette vie là il y a des hauts et des bas alors li nga xamantene bi présentement dañu nekk ci baa bi yal na yalla def ba ñëpp nekk ca kaw alors dañuy am mbégte nak mbokk yi di ñëw ak yeen euh, ci seen émission euh, tam tamu tay ànd ci ak suñu xarit Mariem Mbengue alors Mariem sa su ne dafa ñuy indil ay référence c'est vrai que nak mois de mars bi mbokk yi jeexagul waaye xam nga né dañ ko jagleel jigéen ñi kon nak ki nga xamantene bi tay suñu référence donc quelques instants mbokk euh, di ngeen xam lutax euh, tay ñu indiko waye mi ngi tuddu nak euh, Ramatoulaye Bokum di yëngu ci ay produits yan produits danañ ci and ak Mariem dans quelques instants bu ñu jógee ci lolu mbokk xam ngeen né Sénégal dal ñun ñëpp dañoo àndandoo nek ben donc communauté communauté bi nga xamante ne bi dafa jóge Liberté 4 ñom tamit nek ay chrétiens yi nga xamante ne bi dafa am li ci lu ñuy yëngu inshallah dinañu recevoir suñu xarit Joseph Pascal Badji dans quelques instants Nous nous euh, Iba les ateliers de Iba xam justement nous euh, les ateliers de Iba euh, kon dinañ ci plat dans quelques instants ñu nous alors Léna nous LT Sénégal muy leadership féminin notamment Nous ci bu invité Rama Toulaye ramatulaay lañ kenn ki ñu fégalee ko rama keneen ki lenn nee na ñu jox ko laay bi macha allah mbokk yi du ñu def rekk lu dul daal di dem régie dal si waat

Euh, de am Amsolo Lolchifi Sénégal Tol. c'est toujours un très grand plaisir de te recevoir yaa xam maa mm. le plaisir est énorme je te jure <laughs> euh, di plateau ak euh, téléspectateurs yi xam mm. nga comme ni nga ba ngay tàmbali rek dañu nekk ci mois de mars bi nga xam mm. dañ ko wax ñu leadership féminin mm-hmm. euh, Sénégal def rek ba sukkali suñu absolument ngi lay alors di dalal jàmm avec beaucoup de plaisir c'est vrai que

rasulullahi moy jigen ji mun góor macha allah jigéen ji nga xamne tay bu wax ahmadou bamba khadim rasul mhm. di ci dem ba di ci mbekté ba di ci dox ba di ci mhm. roy mhm. jaariyatullaahi ko waral te jaariyatullaahi grat la ndax mam mariama buso lañ koy wax kon ñu ngi ñu ñepp ña nek fofu ci poroxaan te di leen ñaanal magaluk jamm te di ñaan mam jariyatu barkem yal na ci àdduna yépp serigne touba tay nak ya xam ki indil référence bi moy ada Mhm. ramatulaay bokkum ñu naan ko aada aada mhm. te ramatulaay li tax ñu indi ko bokk na ci sargal jigéen ñi ba tey ci mois de mars ndax jeexul euh, leneen la ca toppaat mooy ci spécificité liggéeyam bi muy liggéey. Mhm. maanaam Ramatoulaye dafay liggéey ci ay produits yoo xam ne lépp pour karaw la. Mhm. waaye lépp ci suñu cosaan la jógee. Mhm. dinañ ci dellusiwaat euh, en tout cas dañuy dinañu kontaan déglu ko bu baax a baax parce que problème karaw ñun ñëpp dañ koo xaw a am. Ah, euh, pour beaucoup de raisons en tout cas mbokk yi euh, suñu référence tey ñu ngi koy wax sànq madame Ramatoulaye Bokoum Ramatoulaye ñoo ngi lay nuyu alors entre autres ci li nga xamante ne moom ngay liggéey DRH nga aussi alors ñu ngi lay remercier ci sa teewaay di kontaan ba noppi nag ànd ak téléspectateurs yi dans quelques instants xool li nga xam ne d'accord en plus de entrepreneur bi suis chargé des ressources humaines. Mhm. donc des yëngu dans différents domaines aussi. très bien ngi lay gërëm la di dalal bu baax Joseph Pascal euh, Badji ngi lay mhm. di ci sa bu ko nga wax ñu euh, communauté parce que comprendre bu nga ne ngi Liberté 4 di ci suñu suñu caméraman bien sûr Sabassi et sa femme évidemment di la famille Médan notamment Marie président euh, Pascal ñu ngi lay nuyu di contane yow itam ci sa teewaay. di la fay bu baax. Mhm. té di yaakaar ni lepp lu fi am rek. Mhm. yalla ci yalla soti jamm mhm. ba ju bëss ba ñu fekkee ko ci jamm inshallah légui communauté bi mën nga ci ñëw rapidement la tamay xoss xuus. communauté bi CB lañ koy faral di ko wooyee. diminutif de communauté ecclésiale de base. d'accord. Euh, comme ni nga ko xamee chaque dans chaque paroisse. dina am ay communauté yi nga xamanteni yu koy ëmb. ci communauté boobu benn ci ñun dafa bokk ci euh, communauté Liberté 4 ñu koy Saint-Georges te mu bok ci paroisse martyr de l'Ouganda. très bien alors dinañ ci dellu ci dans quelques instants ni ngi nuyu justement képp ko nga xamante bi yaa ngi nekk ci paroisse martyr de l'Ouganda Li nak mbokk yi mooy Sénégal euh, parce que ñun ñëpp ñoko ko bu ko défé dinañ xol ñoom tamit événement yi nga xam ñi ngi kay préparer mbokk yi euh, ñu ñëw nak ci walu référence and ci ak Mariem Meng dem xool yi euh, li nga xamante bi mom la suñu xarit Ramatoulaye Bokum mbokk di liggé ñu dem dal ci siwaat

presque ñoko bok. Li janguko c'est une passion pour moi donc elle a fait des séries une série littéraire jàngi en France un jour c'était le jour de son anniversaire un 7 juin elle m'appelle pour me dire maman dagna sama karo yi mun dugg dootuma def défrisage jour boobu j'ai tellement paniqué parce que pour moi, jigen dafa wara am karaw da nga wara def tout pour am karaw mais pas pour dag sa karaw mu ne maman d'abord ben défrisage bi c'est pas notre culture donc on nous a inculqué des valeurs yi nga ne pas notre dañu dem ba identité et je veux faire un retour à notre tradition et ça commence d'abord par couper mes cheveux défrisés bàyyi mu pousser et ça m'avait tellement fait peur que dama dem màkk aji ma oo ko je ko ay na rama ñaanal naa la ndax sa je sa donc def ses compositions depuis Paris non non mi ngi woon euh, Rennes def ses compositions di essayer di def ay tests ci boppam au bout de six mois je vois que karaw gi poussé ba dépassé ni melon et puis c'était doux comme du coton Et que ne ma ka pourtant ça te réussit bien Mon ne maman daal ko quel produit yoy def mon ne man daal damay tester rek mais ce que je veux c'est def ay produits locaux chez nous buma ñibissé euh, côté naturel bi nek na lo xamné ne euh, liggéey mom liggéey na ko bu baax a baax ndax li muy utiliser ay produits yo nga xam ne suñu dëkk bii la jóge génnul jëlewu ko fenn fii lañ ko fii la koy jëlee di ko traité di ko defar nit ñi di ci am seen euh, seen euh, di ci am seen di ci gis seen njëriñ te ça coûte pas cher aussi. elle a trouvé du travail mais en même temps continuer sa passion di def ay recherche sur le gombo sur le hibiscus bisaab euh, ak euh, ay yoroxlaana yu kenn xamul ma ne ko léegi da ngay oo sama yaay comme moom ñoom c'est l'ancienne école dinañ la mën a jox yeneen information sama yaay na ko ñun de bi ñu nekkee xale yoroxlaan dañ daan dem ci àll bi di dagg yoroxlaan di ko raxase suñu bopp soo paree karaw bi day nooy mu def ay recherche en collaboration avec des chimistes des biologistes vraiment di def au point des kii des produits les tester pendant des mois et quand ça marche et nous nag ñu ñoo parce qu'à chaque fois vous mettre au point un produit c'est la famille Nous essayons, nous testons, tester on lui fait des retours pour assurer que ça marche bien avec son biologiste vous mettre sur le marché. je vais vous raconter une anecdote ça doit faire trois mois mu affaire bi ni muy baxee kaan yi tëmb di kii mu vidéo yëpp envoyé ma ce jour là à Dubaï avec les appartements tu sais odeur yeeg il y a des certains plats tu n'oses pas préparer j'ai eu tellement une envie de manger du suppu kànja que dama jóg ci saa si man tamit dem nduggi dikk togg ñuy concurrencer nag suñuy vidéo di ko envoyante donc sur le plan conjugal les relations avec ses frères et sœurs franchement sant yàlla daal alhamdulilah

ça il faut que je le, je le répète, Yorochlan, euh, c'est la première fois, honnêtement, que je dégluco et que bon, je pense que beaucoup de Canadiens nous ont dit Mariam, merci pour référence, bienvenue indil, muy jigen, waye it dindaw. Merci beaucoup Yaham, ñew lañuy jëk jaajeufal. Mhm. Ba paré parce que tay ñun dañ nan référence, dañu wara dem fu nek di xol mhm. domaine bu nek. Tay buñu féké nit ñi ci bureau yi, mhm. fekk ñi ci hôpital yi, fekk ñi ci biir kër yi, war nañ demaat tamit jëli ndaw yi. fekk leen ca la ñuy yëngu tey nag ki ñu jël moom mooy Ramatoulaye bokkum ñu faral ko xam ci aada aada te Ramatoulaye Bocoum spécificité am ndax man moom environnement déjà xam nga sama xol la ne dëgg la donc moom li muy def lépp ci gàncax gi la koy jëlee ndax dañuy xool ne tey buñ ne karaw ñun ñu bëri dañuy dem di jéggaan yee xam di wuti naan shampoing bi moo baax marque bi moo baax tout à fait shampoing bi moom mooy nooyal shampoing bi mooy nooyal te fàtte nañ ñu fii ñun ñu ngi am ay valeurs yoo xam ne duñu dem di ko jéggaani fenn te du metti te da ngay dem ci àll bi mun koo jël def ci faj ci sa soxla te doo ci sonn. Mhm. kon Ramatulaay moom ci loolu lay yëngu maanaam ci mbirum karaw yi dafa dem gëstu def ay gëstu gëstu yu mu def nag mooy dafa dem xool ay biologiste ànd ak ñoom dem ci àll bi xool ay mag di ànd ak maamam maamam di ko expliquer di ko wax. Mhm. kon tey dañuy njëkk a laaj question bi ñuy njëkk a laaj Ramatulaay mooy lan moo ko dugal ci wàllum liggéey boobu ba noppi. Euh, alors lu ma ci dugaloon c'est man maa commencé woon sama bopp comme sama yaay nu mu ko waxee en juin 2015 dama rasé woon sama bopp et période boobu dama décidé du ma utiliser ci défrisage ma dem supermarché pendant ce temps là boobu maa ngi woon jàng France ma dem xool utiliser benn produit ma lire ingrédient bi karité coco huile de palme Asia ma ne may man li ma bëgg a jënd nii am naa ko sama kër lu ma teree defar sama propre produit mhm. ma tegaat fa produit bi yegg kër ga comme xaw ma woon dosage yi nan lañ koy defee c'est là commencé di xool YouTube c'est là commencé di xam mouvement nappy période bob ñu créé wowe le mouvement nappi moy ñoo xamné ne dañoo arrêter défrisage pour revenir au naturel ñun tout ko natural and happy. d'accord à ce temps là c'était pas j'étais pas si mouvance bob man je me disais je le fais pour man c'est pour mon bien-être j'arrête de défriser mes cheveux pour être au naturel xam tamit sama karaw yalla nu mako joxé joxee xool na laa ko mën topato wé c'est là commencé di jaxé sama carité, sama huile de coco am sama crème. Bon France le one sama xarit là laa jox ñu et au fur et à mesure muy marché plus man je viens d'une famille Peul ça marchait beaucoup plus sur moi mais également les produits selon yi ngay mélanger ça marchait super bien sur les autres également ma ici Sénégal en plus de mon travail salarial tamu toog wàcc ñibbi si du def leneen ma commencé di defar samay produits di ko jox sama ñom yaay samay tante samay sœur samay xarit ñu koy utiliser et nous le commencé et eh, Rama dégg naa sa tante bi nee na dafa utiliser ce produit est-ce que mun naa ci am ma commencé di defar on a commencé à faire 20 produits ci crème bi maintenant on fait une production de près de 400 produits sur 8 produits. Donc, okay. euh, alors, euh, juste c'est quand même une réalité mm. pour les personnes euh, et surtout les femmes en Europe. On, a, mm-hmm. on a réellement des problèmes en tant qu'Africaines mm. pour faire ce Parce que ça coûte cher.

c'était pas pour les blacks en mhm. fait c'est ça voilà kon lolu lu jar a la lenen di ci top moy gis nañ ni tey ñëw ñibbisi nga Sénégal demoon nga bitim réew ñibbisi Sénégal comme ni ko mais bi nga ñëwé amna foy fooy nek fa yoré DRH bi manam chargé DRH wa walum ressources humaines mhm. donc dañuy laaj tay nan ngay allier liggéey bobu noonu tay jël li fii ñëwaat produit parce que yaa ngi naan production bi dafay gën a yokk. Mhm. nan ngay boolee ñaar yooyu te doo ci am jafe. Euh, j'allais dire ñett plus la famille. oui <laughs> ñett la famille bi liggéey bi plus entrepreneuriat bi. metti na parce que il faut que tu trouves l'équilibre entre cette vie là des fois c'est très difficile dans les bëgg ça entrepreneuriat bi vie salariale bi familiale mais dans un an, lu lu ma tax entreprendre lu tax ma bëgg produit bi lu tax ma dugg ci passion bi mënuma ko bàyyee non. Hmm. certes c'est très difficile su may def production dans un mois fin du mois je may hospitaliser tellement je suis fatiguée et n'est pas ma ne daf may non au contraire daf may jox courage parce que je me dis que mën n'a def ça fait quoi ça fait quatre ans légui quatre ans que j'allais vie familiale professionnelle entrepreneuriale Mais tu n'as pas de temps. parce que des fois ça doit me nga war livrer et produits faut faire la production Il faut nga veiller si ça doit. nga war a xëy dem donc faut vraiment trouver l'équilibre entre ces vies surtout avec un support familial bi support sama ça m'a xarit derrière pour pouvoir tenir mais maintenant très bien alors Léna tu m'as dit le parce que comme dafa ne dafa c'est adapté à nos cheveux je veux dire certainement elle a dû penser à nos bébés mm. elle a dû penser à nos enfants elle a dû penser à nos hommes et très certainement comme vous avez vu ses cheveux à nous les femmes Je mm-hmm. euh, rafetlu d' abord euh, initiative l'initiative. je suis Napi mm-hmm. aussi donc euh, nous avons def la def dama def big shop maanaam raser lépp euh, pour entretenir li nga xam ne moom euh, le naturel parce que le plus souvent aussi c'est vrai boo arrêter défrisage euh, produit yi ngay war a utiliser surtout pour amee doom bu comme nous mhm. ko yaa xam waxee da nga ko war a utiliser dina nekk loo xam aussi borom kër gi dina ko mën a utiliser kon dafa mel ni da ngay économiser aussi ci wàllum koppar pas économiser parce que on pour en fait... jënd en tout pour cas je veux dire. ça peut être un produit familial par exemple euh, mon Amna amna ego, une qui est fait à base de citronnelle ak soin d'huile pour leur barbe mmh. mais ces mêmes produits tamit ah. la femme peut l'utiliser pour hydrater et favoriser la pousse de ses cheveux donc ça peut être deux produits que le mari et la femme utilisent. En parenthèse, mon mari utilise que les produits. Donc pisse Mon pisse. Donc ce sont des produits qu'on peut retrouver tant si Khalé, si Max, si Gore ou si Jigen. Très bien. Donc ce sont des produits vraiment qui conviennent à tout alors, Alors, de... Mariam, Dina Del mais Pascal, alors ce qui est bien, c'est que tu, tu le mouilles, euh, je veux dire dafa dafa dafa en même temps parce que même aussi du côté des hommes vous avez aussi des problèmes. Mm-hmm. parce que tout ce que vous utilisez c'est fait pour les blancs et non pour les les noirs euh, entre guillemets. lu intéressant là, parce que je na trop. je mm-hmm. suis fu mu fu mu tàmbalee. fu comme nu ko. sama jigéen waxee. Mm-hmm. Euh, dafa produit bi base ko ak lépp moo xalaat ne xam ah maa ngi moom sama dëkk. dëgg la lu tax may dem di di ko tijji feneen te mu ngi fii te maa ngi koy gis saay su nekk mm-hmm. mu may jege. Mm-hmm. donc li nga xamante ni moo ma jege balaa may dem di sono sa mboob di mm-hmm. utiliser li nga xamante ni feneen la may jógee. donc déjà base boobu déjà. oui déjà boobu rek. si la ma njëkkee neex produit am bi. <laughs> waaw xam nga nag man li ma jaaxal mooy ko boobu ba léegi tam tam te lii nag moo ma yem mooy. à chaque fois dañuy dellu ci wat ci ben wax te defe naa on le comprend parfaitement ci bép fànn moy retour aux sources. Mhm. dellu rek fa nga fa te lañ dan def rek la maam yi daan def rek. loolu la ah. la c'est d'où le nom ada ada ça veut dire retour à la tradition. Mhm. dellu su suñu cosaan. Mhm. la la suñu ñom mam doon utiliser pour prendre soin d'eux. pour prendre soin naturellement de leurs cheveux comme sànq sama à mon cœur dama dem si sama mam laaj ko ñom bañ nekkee xalé ay dakh ak yoy ay dakh ak yoy yeen loo leen doon utiliser. <laughs> noo noo doon toppatoowee sama karawu yaay. nank nank nànk mu commencé dima wax. ma mm-hmm. dama tamit di gestu ci côté mm-hmm. biologiste et ak chimiste pour composer. Euh, euh, alors euh, Mariem c'est vrai. ñi ma xam deug deug xam nañ né man karaw yu doon daanu fi mais tu sais tellement avec les produits yi nga xamante ne bi ñi ngi ñu ñuy utiliser tëdd pour ñun mm-hmm. mais da ngay finir par doto amati dara dara dara dara donc vraiment bienvenue daal ci référence <laughs> Mariem lii moom ma yéem yaa ah, ah. ndax <laughs> tey suñu gisee ni dañu war a dellu suñuy cosaan ah, xoolaat di fi maam yi daan def ndax maam li muy def dafa am solo yaa xam mm-hmm. te duñ ko bàyyi mu mm-hmm. nee lii yéem na mm-hmm. ndax tam suñu xoolee tey plante yi xoolal moom yan plante lay utiliser bisaab bi waaw da koy utiliser mhm. mhm. yoroxlaan da koy utiliser te yoroxlaan am na ci leneen luñ ko doon xalaatee lan lañuy ñuy voilà lan la aussi alors yoroxlaan ça dépend ces régions bi nga nek su nekkee dans le nord waaw plus euh, fas yi suñu dawee ba sonn waaw moom la ñuy jox leen ñu naan pour ñu noppalu est-ce que xam nga lu tax tam-tam neex ma <laughs> ah parce que ku koy sétane ben boudé ben mot ah. diñ ko ci jàng parce que yoroxlaan bo ngay wax déjà ça savais pas que ça existait ah. encore baax na pour karaw yow tamit Pascal ah?

mais laalo bi dafay ritax torop kon est-ce que yaa ngi suraale yenn plante wala yenn produit yoo xam ne di ko def pour hmm. atténuer ni muy ritaxee torop exactement laalo bi soo ko utiliser ça va permettre muy euh, solidifier dëgëral yaxu karaw bi mooy tax plus ngay peñe plus karaw bi bañ di ruus donc tout le temps su may defar produit bi damay def benn base boo xam ne su ma si defaree laalo bi hmm. du retax da ngay gis ay clientes nous avons peut-être que day daw seen yaram et tout mais on fait en sorte que le produit final bi suñ ko amee yaram sa loxo mhm. mu comme dit yaram lay donc ça ne laisse pas un effet gras mhm. ni un effet salissant ça s'incorpore très bien sur les cheveux alors ça, nous dégg nga wax lotion donc shampoing évidemment mhm. euh, et puis bon voilà décliner ñu un peu les produits alors on a on huit produits euh, lotion à base de citronnelle qui lutte contre les pellicules et les démangeaisons Madame Karas, Karas, bi voilà ak xasan bi mhm. am crème boo xam c'est fait à base de mangue et hibiscus avec des huiles qui permettent euh, de sceller l'hydratation et de favoriser la pousse tamit d'accord Amener un lait à base de feuilles de baobab ça c'est plus pour nous supporter au wuñu kii de baobab là nous ñu supporter karité parce que karité amener na ñeen ñoo daf jox pellicule tout à fait elle préfère utiliser le lait aux feuilles de baobab a un masque qui est fait également à base de karité ak mhm. euh, soin d'huile qui est un mélange d'huile pour favoriser la pousse mhm. a un euh, démêlant au gombo un démêlant qui est fait à base de ah. gombo. xam vous bu ñu démêlant boo raxasee ba pare da ngay ci def. pour euh, nooyal karaw bi mu nooyal karaw léegi kanja voilà kanja bi nous mu ritaxee non non lañ koy utiliser comme base pour défaire des mélanges comme ça de faire ce shampoing ba pareil nga def mhm. démêlant bi so peñ rek day noy alors Mariem malheureusement il faut que ñu terminer mais ñu xamal rek euh, ñi ñi sétane nek ci walu wu né euh, sénégalais ñi ngi ci geustu di ci gorlu pour que vraiment ñu amal suñu bop te amal suñu bop boobu def naa da fay tax ñun suñu réew mi mëna jëm kanam ñu éviter toujours di di di importer rek te nak mhm. di fas gor gorlu et ça c'est important exporter waaw yaa xam parce que tey nit nit ki li mu nga xam ne moom la am ci wetam te du ci sonn ngir am ko bokkul ak li nga xam ne faaw mu commandé déjà mhm. bu dee produit yu baax nga bëgg te boo ko commandé di nga fay mhm. jafe-jafe yooyu yëpp di nga ko jànkonteel mhm. donte jéggaani bi xëy na mënut a ñàkk dëgg la ndax lépp mënuñu koo am fii waaye li nga xam ne mën nañ koo defaree te mu jege jegeñu nañ ci sukkandiku ba noppi très bien parce que tey à force que ñu koy def rek dinañ dem ba gën a am lépp li nga xam ne moom lañ soxla ci quantité mën koo def mm-hmm. loolu lu jara suuraale léegi nag lan ngay terminer ak suñu bon li may terminer rek mooy conseil bi nga xam ne ñoom ngay jox mm-hmm. nit yi nga xam ne saa yu ñu tollee ñu ngi defri seen karaw yi di ay afro ci am yenn jafe-jafe yi ban conseil nga leen di jox alors maximum arrêter de défrisage parce que défrisage daf lay jox impression comme ni ko sank sa carotte dafa gudd mhm. dang nga koy def mu lisse non lu la neex mais au fond day agresser sa carotte ah en plus il y a des risques cancérigènes ces carottes ah voilà carrément fi carrément ça a même été testé légui voilà même soo ko mënul bàyyi nga def ko une fois wala deux fois dans l'année mais sachant qu'également qu'il y a des produits qui sont faits au Sénégal yoo xam ne mën nga traiter sa bop sans pour autant défriser ko faut juste dem vers ñu koy defar ñu lay ñuy expliquer na lañ koy utiliser et à longue, tu as les mêmes résultats. Sauf que tu n'auras pas les cheveux lisses et longs, mm -hmm. mais tu auras les cheveux touffus et volumineux. Alors, dañuy lay gërëm di la sant bu baax a baax. Lena tamit dina parce que tu vois <laughs> entrepreneuriat Lena dafa ci euh, yëngu di ci invité ñu bëri ñu en tout cas nous avons nga xamante bi Mariem organisé na euh, li nga xamante bi euh, côté familial côté ligue. bi ba a def plusieurs ligues et je pense que tendance bi maintenant c'est ça. Mhm. c'est-à-dire que da ngay am fu nga am une certaine assurance. et puis voilà prendre le risque entrepreneuriat en tout cas dañuy gërëm di sant bu baax a baax Mariam Meng ci référence bi mu ñuy indil tey muy Ramatoulaye Bokoum ñu lay souhaiter euh, plein plein succès à tout ce que ngay entreprendre mbokk yi euh, nu dem régie dellu si waat recevoir suñu xarit euh, Joseph Pascal Badji

de plus en plus ñu ngi bàyyi suñuy valeur waaw di ko teg ci gannaaw di comme ni nu ko jógee wax léegi di jéegaane mm-hmm. ay musique yi nga xamante ni mooy jógee ci biir bitim réew di di ñu agsi mm-hmm. donc ñu xalaat xool ci xam ne ni war nañoo mën a dekkaliwaat yenn ci suñu cosaan dëgg la mooy ñu tàmbalee ko ci njël mm-hmm. te di ko xalaat organiser le trente

mooy deuxième édition bi. waaw te ñu koy def le trente. Mhm. donc ci activité boobu bëgg nañu comme ni mu ko waxee. waaw dekkaliwaat li nga xamante ni mooy cosaan séeréer dëgg. Mhm. ba nag li ci li ci intéressant mooy en fait mhm. da ngeen commencé ci séeréer yi mais kon xam ngeen ne Sénégal dafa bëri ay communauté mm, je pense que édition bu jot di ngeen am benn communauté boo xam ne di ngeen koy touché. moom moom moom laa bëggoon ci kanam egg si euh, processus la comme ni ñu koy waxee. benn la ci. beneen yeneen processus yi nga xamante ni mu ngi ñëw ci kanam. fii ba deux mille vingt et un. d'accord ci séeréer yi la ñuy tàmbalee. Mm-hmm. mais ci kanam mm-hmm. bu ñu xoolee ni jamono ji activité bi luñ ci doon. séntu lépp am nañ ko ci. waaw ah bëgg nañ yegg ci jolaay très bien <laughs> alors après mankani, très bien loolu doon bëgg wax jël yegg ci jolaay ci mankaañ et cetera <laughs> alors euh, di fatali nak nek dafa am importance que euh, vraiment ñuy dellu ci waat ci sunu cosaan ci bépp fan. en tout cas Pascal mm-hmm. euh, RTS 2 mi ngi lay remercier. Mm-hmm. di souhaiter plein succès ci li nga xamantene bi mom ngeen di def. yaakaar naa ne gox bu ne wa Liberté 4 ñu ngi leen di nuyu gox bu ne defé na ne bu ko defee defe même mm-hmm. c'est intéressant pour les enfants parce que dinañ xam ne que culture nit dafa am solo ba paré Sénégal c'est très diversifié et c'est très riche surtout. En tout cas, Ngel, on aime beaucoup avec guitare bec euh, la <laughs> et on promet aux téléspectateurs que très bientôt inchallah nous am ñun tamit ben émission boo xam ne ko def ci Ngel euh, invité voilà toutes les équipes de la RTS2 merci beaucoup et plein succès à toutes ces manifestations moki nous ñu dem nag ànd euh, IBA les ateliers de IBA ci wàllu gastro mbokk nous ñu dem dellu waaw ah, leena nag wax dëgg yàlla damay avouer tey nag moom <laughs> ah pizza bi nga xamante ne bii dañ ko sénégaliser moom ay nokkas ak yooyu xam naa ne ku si war a def euh, j'aime beaucoup ketchup ketchup ak tuuti kaani jël ñaari paari def ko nii tëj ko nii <laughs> non leena dina garaaw. ma wàcc summi la rek. <laughs> déedéet ma ñëw non tey d'accord naa. Ah, daanu nga daanu naa. Ah, na. franchement c'est bien fait. oui très bien fait en plus comme ni nga ko waxee dañu ko sénégaliser def si ñoom nokk si xam nga kon day gën a saf te ñun sénégalais moom daanaka lu lewet daal hmm. très bien N'ako indi nag. na indi voilà euh, euh, alors euh, dañuy am mbégte nag di dalal beneen Ramatoulaye bi mais cette fois c'est Ramatoulaye Bathily hmm. dinañ ñëw ak yow ba ca ak Lena ci développement personnel waaye peut-être nga sànni kàddu rek ci li nga xamante ne bi moom la Iba defar tey defe naa ne ñun ñëpp d' nañu ko lii boo ci am as tuut rek dana dafay baax daal. waa am na solo de moom. Mhm. te xam naa ni moom sa genre gi yaa ngi doon caalit <laughs> sànq sànq ñoo ngi gis nga doon caalit. Uh-huh. macha allah am na solo daal. très bien tout cas ñu ngi lay dalal jàmm bu baax a baax. ci plateau tam tam ma bàyyi la nga nuyoog waaw maa ngi nuyu téléspectateur yi di nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi. Mhm. Euh, di kontaan ci invitation bi parce que yéen a ñuy permettre ñu gën a wane lan mooy LT Sénégal parce que nit ñi dañ koy dégg. Mhm. mais xamuñu lan mooy LT Sénégal donc ñu ngi leen di remercier bu baax. très bien ñu ngi la ciy gërëm di sant bu baax a baax alors un mot par rapport pizza bi euh, Mariam. oui bàyyi ma def ni nga def rek. comme kii da laa siwal damay bañ alors très bien mbokk yi ñu ngi remercier bu baax a baax xarit Iba les ateliers de Iba mu ngeen ko seetaan réseaux sociaux yi alors di fàttali nag ne le samedi Iba est en live and direct avec l'équipe de Tam Tam du week-end mbokk nous nu xus nag yegg si ci li nga xamante ne bi euh, développement personnel àndi ci ak suñu xarit euh, Lena alors Lena euh, li ñu wax rek fin mars bi waaye nag comme xam nañ ko année bi yëpp ñun ñoo ko moom ni ñuy waxtaanee Alité Sénégal nga xamante ne bi dañuy ñëw bu baax a ci leadership.

ñu ngi koy jëfandikoo ba nga xam ne dina développer seen activité moo tax at bu nekk dañuy def ponk boobu tànn ñetti jigéen nga xam ne ñooy gagné euh, prix bi nga xam ne ñoo ngi koy organiser ñu am premier prix bi 10 millions deuxième prix bi 5 millions troisième prix bi 4 millions ren nag macha allah am nañu ñetti lingeer yoo xam ne projet yoo yu baax ak yu maanaam yu prometteur nañu am. boo gëmee sa bopp moom yaakaar naa ne ci loo dugg rek di nga di nga xalaat ne di nga yegg di nga am trophée même budul bi sax mën nga am yeneen. Euh, ma ci kontaan bu baax mën na am kenn koo xamantane mën na gis ma am euh, raaya bii nii loolu gën ko yokk gën ko tax muy gën a liggéey. tontine ku ko dégg xam lan mooy tontine moom lu am solo le le développé mi ngi fii ci géejuwaay boo xam ne day jàppale nit ñi xam ne dinañu participer ci tontine bi bu ñu soxlee électroménager euh, système bi dina leen permettre ba nga xam ne lépp dinañ ko soxla dinañ ko ci mën am système boo xam ne vraiment defar na ko ba mu baax. te tey gëm nañ ñu ak euh, jàppale bi nga xam ne dinañ ko jàppale dina jëm kanam ba fépp ci Sénégal nit yi dinañ ko mën a utiliser. Euh, i tontine nag euh, Sénégal booy seetlu tontine ñu ngi ñu ngi ko gën a xam ci xaalis xaalis nit ñi ci la ñuy natt mais tontine mu ngi jóge Italie ci benn banque italien bu tudd Lorenzo Tontine concept de base bi nekkoon ci ay terrain léegi ñun nag dañu delluwaat ci concept de base boobu noonu ki ko créé fi mu ju fi mu ko ci concept boobu. Euh, boo bëggee comme par exemple matériel informatique ñu def ko tontine nga bëgg matériel électroménager ñu def ko tontine nga bëgg mobilier de maison mobilier de bureau loolu yëpp ñu koy def ay nat ñu xool ne situation nit ñi demeewul noonu Sénégal parce que ñun ci balier bi lañ dëkk xam nañ nit ñi li ñuy nekkee booy seet euh, i mooy loo xamante ne ci web bi lay lay nekk motax ñu jël lo xamantane lu traditionnel la ñu jël ko méngale ko ak jamono muy internet motax mu nekk e tontine la tontine en ligne. Déjà, je suis agréablement surprise parce que j'entends tellement parler de Fatou Kiné Diop. Xam nga mère yi d'habitude ñooy def affaire de tontine <laughs> alors que on voit que c'est une jeune fille mais moom initiative yu rafet. Alors, c'est vrai que nag Lena dama koy wax de tam tam mom machallah allah et je remercie mhm. vraiment chroniqueur yep yi nga xam dañ ci japp sa su ne alors ndekete loolu zo tontine mom moo moom moo <laughs> ca moom la jóge ñun nak ñun Sénégal ñu foog ñun tontine ñun ñoko mom non noonu. <laughs> xanaa ñu remercier Fatou Kiné Diop bi nga xam ne euh, moo ñu xamal lool di remercier aussi au passage euh, Maymouna si mi nga xam mom mo moo jël euh, extrait yooyu aussi. jàppalante bi rek. ci biir tam tam bi. Mhm. comme ni ko waxee xam nga tontine dañ jappone ni xaalis xaalis la te moom nag dafa dem ut beneen euh, euh, part boo xam ne ni mën na ko defee tontine surtout pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, les femmes xam des fois jigéen dooy jot am temps épargné wala affaire bu ko nga am terrain wala nga am électroménager pour aussi euh, équiper ce parce que aussi dafa am am solo euh, pour comme yu ibaar yi pizza yu am nokkas yi euh, donc initiative bu rafet mais loolu yaa xam prox pour jël nga sujet bi ñu indi tey le leadership féminin parce que tey gis nañ fi ki nga ak <laughs> voilà comme tu disais tout à l'heure deux Rama. <laughs> voilà Nous ñu nekk ay jigen ay ndaw surtout yo xamné ñi ngi yëngu ci walum leadership féminin fexé naka la jigen Sénégal mëna def ba jëmale réew mi kanam euh, tay nak Ramatoulaye Bathily mom bokk ci li nga xamné ñom ñoy LT Sénégal. Mhm. ñom aussi euh, ci mois de mars bi yëpp nak danaka dañu amalon ay activités pour justement promouvoir le leadership féminin est-ce que mën nga dikkaat justement ci activité yooyu. Euh, depuis mois de mars j'ai commencé à tey ñoo activités voilà d'abord commencé avec nañ campagne bu ñuy Powerful Women jigéen ñi ñoom ñoo euh, lancer ay messages. Mm-hmm. lu ci lu nga xamante ne mooy jëmale jigéen kanam. Mm-hmm. voilà ñu defoon ci campagne boobu mu nekkoon du premier au 8 mars. Maintenant, nous bi ñun des ngi ci ay formations aussi au niveau de Saint-Louis am na formation bu ñu fa jot a def euh, sur l'entrepreneuriat donc ñu ñu def formation boobu ak jigéen ñi pour kàttanal leen dooleel leen. Mhm. ñu mën a xam ñoom seen taxawaay dëgg-dëgg ci ci réew mi. Mhm. voilà. Mhm. ba bi ñu jugee Saint-Louis ñëw nañ ñëw nañ Thiès au niveau de Thiès. d'accord aussi def am na formation yu ñu fa def. léegi clôturé nañ foofu noonu niveau euh, Dakar lañ jëm moom la ñuy waajal le 30 mars bi incha allah ci lañ ciy dem. alors j'aime bien ce côté décentralisation. Mhm. Lena waaw parce que justement ñu ngi yaa ngi doon wax euh, dinañ ñëw ci luy LT euh, Sénégal kon dafa mel ni dafa ben structure boo xam ne yéen a ko taxawal. décentraliser ko niko ya xam waxee. Mhm. parce que des fois dañuy yaakaar ni Dakar moy Sénégal alors que amna yenen jigen yo xamné ñi ngi ci région yi. Mhm. di bay seen waar aussi ci walu bobu est-ce que mën nga dikkat ci sen structure bobu lu ko tax voilà comme niñ ko tuddee rek LT Sénégal dafa wuyu turam voilà dañu am ay cellules euh, région bu nek am nañ fa cellule am nañ cellule bu Saint-Louis am nañ Matam am nañ euh, Thiès. am lan la tekki en fait lan la tekki. LT moy signifier leaders of today leaders of tomorrow. ok njiitu tey ñoy doon njiitu ëllëg yi. Hmm. parce que tay ji bu ñu tàggatul ci ni ñuy wé tay ji bu ëllëgee bu ñu waree jiite dañuy am problème. dëgg la voilà ci loolu ci ci ci base boobu la LTI Sénégal ci lañ ko créé woon en 2013 léegi boobu ba tey nag ñuy yëngu ci wàllum solidarité ñu am benn programme boo xamante ne solidarité point LT la tudd nekk ci wàllum jigéet kese la ñuy yëngatu programme boobu noonu dañ ciy jàppale orphelinat yi ak daara yi. ci li ñu am ci as néew parce que tey ji ñun amuñu dara ay jeunes étudiants lañ waaye li ñu am as néew la ñuy dajale dem jàppale leen di waxtaan ak ñoom di leen jàngal àdduna parce que tey ji am na temps boo xamante ne ñoom seeni ay parents nekkuñu ak ñoom mhm. am na loo xamante ne waroon nañu leen ko jàngal te tey ji dafa am luy manqué daal mhm. voilà dañuy dem yendu ak ñoom def ak ñoom journée andi leen lekk duñu génn duñ def leen ñun ak ñoom ñooy toog waxtaan et tout passer quelques jours. alors Léna leadership je pense que côté social de dafa une mhm. importance bu tu euh, ci développement personnel parce mhm. que il faut aussi ngay def pour communauté bi aussi euh, pour que nga soyons nek vraiment leader. tout à fait euh, parce que je pense que kon dafa melni ñom ci action action citoyenne yo xamné ni ñu koy ñu koy promouvoir. Mhm. te dafa melni aussi 4 avril bi ñuy aussi euh, éducation à la citoyenneté bokku na ci thème bi nga xamné gouvernement Sénégal mom le retenir tamit kon tay ji yaa ngi a ay étudiants ngeen kon mhm. maanaam koppar gi tax demeewul non et pourtant y a ngi encadré di coacher aussi euh, ndaw yi pour mm-hmm. euh, lu jëm ci wàllum entrepreneurial ou mm-hmm. à citoyenneté di def aussi action sociale mm-hmm. kon tu ji yéen naka ngeen di def aussi pour mener ses action est-ce que y a ngi démarche structure étatique voilà voilà avons ngi euh, démarche mais ñun xaaruñu kenn pour def li ñu war def ah. voilà j'aime beaucoup cet esprit xaaruñu kenn xaaruñu kenn li ñu am astute mom moom la ñuy boole ku ñëw jàppale ñu baax na mhm. kuñ si jàppalewu tam ñun li ñu war bëgg a def suñu objectif dañ koy atteindre alors ña ngi lay gërëm ci li nga wax léegi Mariem damay kontaan ci jeunesse bu nga xam ne dañuy xalaat mhm. lii ñun dañuy def ku nu ci fekk mu ñëw mais la ñuy def ci wàllu social parce que dafa am benn lu wax bu mu wax boo xam ne daf ma intéresé bu baax a baax xam nga def baax na waaye tamit waxtaan ak ay nit pour une certaine orientation je pense que ça aussi sa important surtout ça yaa xam loolu moo ëpp solo parce que tey nit ki mën na am moyen am lépp te du xam li muy def parce que man je me dis ñoom ay étudiants lañ. jot nañ am ay lijaasa yu ñu am am nañ ab jàng bu kawee boo xam ne yegg nañ fa. kon tey loolu war na leen permettre nit ki nga xam ne dafa bëgg am benn projet. Mhm. donte koppar yi newu fa mu ne la fii ngay jaar nii ngay doxalee nii ngay doxalee stratégie bi ngay dox ba tey bu koppar bi ñëwee nga mën a def. loolu lu am solo la. ba mhm. pare beneen point bi nga xam ne moom laa gën a naw mooy gëm sa bopp bi mu ngi ci. Mhm. parce que tay du da nga yor ay milliards rek da nga wara entreprendre mhm. tay war nga tambalé lu ndaw di yek ci kaw mhm. mais information éducation et communication lolu IEC bobu moy mhm. li ëpp solo ci walum entrepreneuriat parce que kon pour ñëwaat euh, ci li nga xamné ne ngeen di waajal moy seen journée clôture dafa mel ni aussi am concours national de projet lolu ci nan le tëroo waaw concours euh, concours national de projet la euh, région différentes régions yi ak suñu structure yi ñu jot a am mm-hmm. ku ci nekk rek ko xamante am nga projet da ngay ñëw présenter ci ko légui bu ko défé ñu def concours bi bu ñu défé concours bi après ki nga xamante mom mo ci gagner ñun ñun dinañ ko accompagner jëm mm-hmm. ko jox katanal ko dooleel ko ba nga xamante ni projet wam boobu moom dina ko mën a taxawal léegi ñu bëgg participer ci concours boobu loolu exactement lan la ñuy fournir comme document lan la ñuy euh, fournir comme euh, document ñun euh, dañu am suñu site bu nga xamante ne ni bu ñu fa duggee 3w point lt point sn bu ñu fa duggee information yi yi nga xamante ne soxla nañ ko yëpp dinañ ko amee foofu noonu Mhm. très bien léegi euh, parce que dañu gis ne ni que nekkul ay jigéen bon c'est vrai que jigéen ñi ñoo ëpp ci euh, ci seen structure. Mhm. mais am na aussi góor yoo xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo leen di accompagner seen njiit sax il me semble que góor la. Euh, te Nations Unies dafa wax he for donc mhm. jigéen c'est bien vrai que dañ ko war a fulaal dooleel ko pour mu jëm kanam mais góor yi aussi waruñu leen bàyyi gannaaw. absolument si góor yi waruñu leen bàyyi gannaaw mois de mars bi moom moo tax jigéen tay ji moom moom la ñuy delloo njukkal mois de mars bi moo tax ñu teg programme boobu mais góor ñi aussi am nañ si pàcc am nañ si pàcc bu bu mag daal ci biir LT Sénégal. Mhm. parce que suñu suñu euh, suñu bureau organisation beeg lépp góor ñi ñoo ngi si biir comme ni nga ko waxee suñu président góor la. Mhm. voilà jom ñoo ñuy dooleel di ñu kàttanal di ñu won yoon bi daal. très bien alors Léna, peut-être euh, rappeler justement date bi nga xamante ne bi nit ñi war nañu ñëw en tout cas euh, ñu wo tous les jeunes. Hmm. ñu ñëw fekkee parce que mbir mi waxtaan la et je veux dire fofu ay idée yu mag mën na fa soxé ko. Hmm. je pense que ñu mel ni yow. Hmm. waroon nañ fa mëna <laughs> téw aussi euh, pour vraiment parce que je pense que ñom lu ñu gëna soxla mom moy des discours qui sont motivants encourageants aussi. yu mëna permettre tamit ñom ñu ñu jëm kanam. absolument xana rek nga fatali date bi ak heure bi aussi le 30 les donne, 30 le 30. voilà la def euh, formation la ñuy a def. Mhm. bu après c'est le euh, concours projet formation sur l'entrepreneuriat. Mhm. voilà très bien. Alors, il y a au mm. monument de la Renaissance. Très bien. Et ça, c'est important. Alors, je rappelle aussi, pour nous, qui beaucoup déposer un projet, www.lt.sn. C'est bien cela. En tout cas, Denis Sante Lena. Lena, un dernier message ou une dernière question c'est oh, bon c'est bon kay moo bëggoon xam xam naa ko ma leen di <laughs> encourager rek. très bien <laughs> ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax euh, Lena tane chaque fois di encourager euh, jeune entrepreneur ak ñi nga xam ne dañuy jàppale pour que euh, vraiment nit ñi mun a ay idée développer ko mu dem ca na mu war a demee mbokk yi dañu leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ñu ñëw nag yegg si ci vue sur la toile. waaw on a mu doon vue sur la toile alors Ramatoulaye euh, Bathily lan nga gis ci vue sur la toile <laughs> alors justement tu ree j'espère que ñi nga xam ne dañuy ñëw gens ci yéen dinañu ree reetaanu bànneex parce que tout simplement dinañu am ay connaissances à ñu acquérir. ba pare nag fas yéene jóge foofu ay entreprises même si c'est des petites entreprises en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir Moi, di Fatali, Ramatoulaye Bathily bokk ci LT euh, Sénégal merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, nous sommes chez Ramatoulaye, cette fois-ci c'est beaucoup. Alors, Ramatoulaye, tu as vu sur la toile. Euh, c'est décompressant. oui genre yi ngay bëgg di gis ba alors c'est vraiment bien qu'on voit ce genre de choses sur internet en tout cas euh, nous ñi ngi Je vais ma lancer un dernier message par rapport justement à ces jeunes entrepreneurs. Mm-hmm. C'est important C'est intéressant ce que a fait parce que da ngay nekk entrepreneur. Mm-hmm. doo gis ku la jàppale doo mm-hmm. xam donc intéressant intéressant ce genre structure nga xamné dinañ jappalé jeunes yi mhm. su nekkul ñom di nekk ay association ay banque yenen tamit yu nekk fi yo xamné ne entrepreneurs yi dinañ mëna dem di gëstu di jang si ñom donc c'est très bien très bien laata nak may xoss ci euh, Lena ak euh, Mariem Moi, je pense que les parents ont fait des témoignages et il serait bon Peut-être de les saluer. Oui, papa et maman, coucou. <laughs> Ce sont mes, sont mes, sont mes amis. ñoom ñoo déjà bu baax même si je bëggee bàyyi sax. Mhm. ñoo may dugal si néeg ne ma xalaatal lu tax nga commencer. a commencé. ak ñoom laa bind projet bi. Mhm. sama papa me financé pour me commencer. ah donc euh, il est important hein qu'on leur fasse un coucou. Euh, ba pare nag euh, di nuyu aussi le mari n'est-ce pas. oui il supporte beaucoup. très bien c'est important alors ni sant di gërëm bu baaxa baax suñu xarit Lena sar toujours un très grand plaisir di faire gogio euh, di fàttali aussi midi actu bi nga xamantene bi Léna mi ngi koy def ci RTS2 euh, tous les midis rediffusion à 19h merci beaucoup euh, Yaham de remercier vraiment ñi ma na euh, plateau bi ak euh, téléspectateurs yi di len jox rendez-vous jeudi prochain inshallah inshallah merci beaucoup Lena way di di gërëm di sante bu baaxa baax suñu xarit Mariam Beng ci référence yi ñuy indil waaye Mariam dañuy contane it ci en pleine nature bi nga xamante bi jot nañu ko sétane ci RTS 2 di fatale né émission boobule ci walu environnement lay wax te incha dina ñëw ci RTS 2 sa suné ne Mariam lay gërëm di la sante bu baaxa baax machallah merci beaucoup. ko yaa xam ñu ngi mm-hmm. lay jaajëfal bu baax di jaajëfal ñi nga xam ne moom lañ bokkal plateau yi mm-hmm. parce que d'habitude dañ naan du rama wala rama la ah. mais ñaari rama rama la rama la ramay <laughs> rama <laughs> rama la <laughs> donc du coup ñu ngi leen di jëfal di jaajëfal leena moom xaritu oustaz bu mm-hmm. baax a baax mm-hmm. <laughs> donc ki nga xam ne aussi moom laay remercier euh, yaa xam tay mooy mm-hmm. Kiné Style ma nga nekk foofu si Cité Fadia numéro téléphone am di 77 316 48 64 alors c'est vrai que nag euh, am nañu rama rama waaye ku nekk ak sa rama oh. may nuyu suñu ramatulaay ñun mi ngi tudd ramatulaay <laughs> Seck di def njàngatu bés bi ñu ngi koy nuyu ak équipe am mbokk yi euh, di remercier vraiment toutes les équipes techniques yi nga xam ne saa su ne dañuy ànd ak ñun di liggéey di leen jox rendez-vous incha allah suba pour beneen émission tam tam bonne suite des sur la RTS2. Au revoir.